la زماني نجيت

زينب الذي لم يدرك Amen. lii gis na lool la baat wax dañ waa lay saan sal na beere masha Allah ñu am ko wa rek ko ñu ñëra du rek naka naka sal ko ndir woon ci ko doole bu sat ñaare du rek wallahi dégg nga yéen a ngi bëgg loolu ci jox ouverture ouverture. gars yi na yaatu waay. gis nga moom noonu di génn ànd ak jëkkëram ji baax gi sëñ Askia Touré ndeysaan. allez. lëkkale la may leen di pep. gis ngeen ouverture allez. loo si naan bu baax ak lu may fànn laa bëri bi jëmewul la barke sa yëg boo gisee nga koy fay dëgg la dëgg la dëgg après ngay ñëw tàng jër. ah. ñun ñoo si yokk ñun. jël kat nii rek bu jël am benn ñoo fan ngeen waa Touba Dakar waa Dakar ngeen doon seen an maris eh Cant ak perte la wane. façon jus bu ne am na. ah expliqué ko. façon jus bu ne am na. naan naa fi cocktail bu ne. cocktail yi am fii États-Unis cocktail de valeur. waaw di moo ko defal waaye. di salaamaaleykum maa ngi leen nuyu ñëpp. kontaan na ngeen de di konga la banane orange ananas grenadine. jus naturel kese la. Khalil Khalil. Eh, Okay. Senin askıya atıyor. wàññeeku ñu dolleeku parce que affaire yi wu mu àttanul fanaanu fenn directement la. waaw nit xool na kenn du yow. ñam naa ci sax kenn du yow. ma ne xëy baax yomb na waaye dëkk caa jafe soxna Ngoye Fall yàlla sa jàmm yàgg nga àndante soxna Daba Ndiaye Koundé àndante bu rafet lu ma mënoon a waxul barki yow tamit yow yaa bëgg ñëpp. 300 béyee kees yoo nekk nii yow yor tur bi wallaay dégg ngeen ko moom yëkkati ay kàddu naan sama yaay sama xarit waaw du sori dibiteri dibiteri baa ngi ne ah non nañ fa dem rek kéegi yaa ngi nii kéegi yaa ngi nii. kontaan naa vraiment. Macron Macron merengue cupcake cupcake et le pièce célèbre du gâteau. Thank you. sant. Adja li la woote ñu décoré ba mu baax. ataay ataay ju mel tabarkàlla jàmm wax ko gan ñi rek nag dara Cheikh Bamba Sëriñ Tuubaa waaw jox ko waa Matam kese kontaan nañ nag ci yow lépp mat na lépp nee na daañu yàlla nañ ko yàgg mën barke ci waxaat yi ndax bu fekk téeméer ak nangam toj na bi ay si dus kalam xay si kanam xay si kanam def nga li Serigne Touba digle bu ñu paree ngay xam loolu bu ñu paree ngay xam loolu bu ñu paree ngay xam loolu mu la jeunesse mu ne day sant Serigne Touba day sant Serigne Touba Cheikh Mouhamed Touré si la ma gañee garme doomi garme si waay si la ma ka jàppante garme doomi garme Reculer, reculer. Thank you.

Touba waaye tariqa lool xam nga nag nekk ci alquran li sax ñu dooree ba léegi ñu askan ci ndigal ci gox yi fa takk ko ñu ko lan ay kat ñu ngi leen di gis ginnaaw yàlla ko ñetti kaami ci biir ku ne wax ci barkeelu nga ko dëgg asalaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di ziara. ñoo ngi leen di baal xaq ñoo ngi leen di baal. ci def muy bëgg a dimbali. balaa nga ci mbooloo. te jëlee ko njëriñ. la am njëriñ dañ koo déglu. di xool la amul njëriñ. te nekk yaa ne màggal sëriñ Tuubaa gi yor-yor bi la. ba tax la ngay def di dem ba seen kër moom mooy loolu la yor-yor boobu itam seen tubaab yor-yor la fi jëlee wu saa bu saa bu tàmbalee rek ma ngay jàng alxuraan jàng na ba alxuraan ba noppi mbokk yi mën a bàyyi yëpp ndax kat seen tubaab dafa jàngale bu fekkee mooy ku jotaayu way texee ni jotaayu way texee ni mooy jotaay nga dem ci jotaay ba jóge ko dafa benn njëriñ lu dul àddina nga koy jëlee da nga fi yaa nag yàgg léegi la ñu jëm